ku la bari xam foofu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. Ahmadou Lamine Ahmadou Lamine Modou Lamine Mbacké jara way baar bilaay baar ay Modou Lamine Ahmadou Lamine baar Modou Lamine Mbacké jara way baar bilaay baar yaakaar abadan baar Serigne Bara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar abadan baar Serigne Bara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar abadan baar Serigne Bara yow la nu yaakaar fii aray maamam sëñ Basiiru baaray maamam wax leen Basiiru baaray maamam sëñ Mustafa Lakram sëriñ Basiiru baaray maam sëriñ Basiiru baaray maamam bila yin waa géej gana baara na fii ba bis bi di ñëw lépp luñ fi añee wala luñ fi reere wala luñ fi naan nee na moo ko indi kon ni mu ko waxee woon moo ngi koy defee noonu Mbàkke ngir jëmmi sëñ Baara rek tax mu koy def nag nee na moo koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di sant yit soxna Sooda Badiane nee na añ yee di ñëw këram soxna Sooda Badiane moo koy defar di koy indi mi ñu dénk nag Serigne Khadim Gueye Baara moom sëñ Fallu jàmbaar la lool soxna Sooda soxna Sooda Badiane bu koy def bëgg lu ak fonk ko ak am yéene ci bis bi ak di ko jàppale nee danga da ngaa bokk ci njabootu Cheikh Moustapha Lakaram ak magam nee na ñi njaboot Cheikh Moustapha Lakaram mu baax mi sama baay sama karit nee na nga ñëw fi indi fi teraanga yii ne lii man maa la ko jàppale ci bis bi Serigne Bassirou nee na ay tisi la ko sol ci bis bi nee na moo ngi lay sant soxna Latifa nee na le vingt cinq bi nga jëm nga xam ne nag dañ cee war a décorer mboolem kuy jigéen di jàmbaar yor entreprise mboolem jigéen joo xam ne yaa ngi yëngatu rek côté bu mu mën a doon mu lay soññ di la décorer le 25 bu xëyee fii bu ngoonee mu dem fële ca King Fat Place defee ko fa ngir sargal jigéen ji ci jigéen dafa am wàccuwaay ci l'islam loolu moo tax moo ngi lay sant Latifa di la ñaanal yàlla fas yéene jàppale la. ci projet boo mën a ne nee naa leen wàccaay wii bis bu yàlla sàkk nii daal lañ koy àndeek moom ba bis ba nee naa daal fii ba la 25 muy samedi ni lañ ko fas yéene ànd ak yow gaynde baara Serigne Bassirou Mbacke xaadi aw ba gaynde baara buñ fi ñëwee di fi def sagu lislaam gépp lépp ndam la yàlla nañ yàlla suturaal li jafe nit li jafe nit mooy xol bu rafet lool de yàlla defal na la ko sëñ bas olof nee na suukar bu ñëwee sëñ bas ne ko géej laa jëm bu del siwaate yeggul woon de eggul woon fa mu jëm kon yàlla nañ yàlla yàlla dooli xéwal yi yàlla oyofal sunuy xol te may ñu oyof lu waay yor fi nga koy bàyyi bokk nañ soppante yal na yàlla defal jàmm ak xéewal asalaamaaleykum wa najjini min kulli sarrin wa bala wa awli jumlat al ida kulla bala ya rabbana innal wara tadarraw لأوليائك معا ليصفوا Seex sa mag gi am na ndam baari murido yen waa Maam Seex sa mag gi am na ndam baari murido yen waa Maam Seex sa mag gi am na ndam baari bara Amina Talo Mustafa ko gis mooy Bamba baari murito yen wajejen gayna baara am na ndambaar gayna baara woote na wax leen gayna baara woote na bilaay gayna baara woote na baar nee na ginnaaw ba mu sante yàlla mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di dellu di sant Serigne Touba ñu ngi sant Serigne Touba ñu ngi sant sëriñ Touba. sant Serigne Mouhamadou Lamine Baara Mbacke. di sant Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke. di sant Gaynde Baara. di sant Gayndek Serigne Baara. Serigne Bass Khadim Awa Ba. Serigne Bassirou Khadim Awa Ba. le marabout sëriñ gentlemen. le marabout des gentlemen. Serigne Ba. le marabout de képp ku bëgg lu baax Serigne Bassirou Khadim Awa Ba mooy sa Serigne. tapet mënut ànd ak Serigne Bass. tapet du ànd ak Serigne Bass. yambar mënut ànd ak Serigne Bassirou. yambar du ànd ak Serigne Bassirou. ku bëggul dara mënoo ànd ak Serigne Bassirou. ku bëggul dara mënoo ànd ak Serigne Bassirou. ndokk ñun bañ bokkee ci njabootu Serigne Bassirou. ndokk nag ba nu bokkee ci njabootu Serigne Bassirou. ndax sag la. ndax Serigne Bassirou sag la. xam nga maanaam nit ñi dañ naan espoir. nit ñi dañuy wax espoir muy yaakaar. yaakaar maanaam espoir maanaam fenn maanaam fenn lañ ko war a waxee nee na espoir di yaakaar fen lañ ko war a waxee mooy Serigne Bassirou Mbacke Xaadim Awa Ba miy toog nit koo xam ni fépp foo ko gis buy dox bul laaj ci maamam rek lay dox ak ci lu baax Serigne Bassirou nit la koo xam ne bëggul dara lu dul lu baax fonkul dara lu dul lu baax boo koy lebal lebal ko lu baax sëriñ Bassirou boo koy jàpp da nga koy jàpp ak lu baaxam ñoom ñii nag Mbàkke dañ lay ñaanal gudd fan ak wér ndax sa dund lu am njariñ la mbake sa dund luy ñoŋal liggéeyub Serigne Touba la daal ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi lool nee na ñoom ñoom daal lay ñaanal yàlla yàgg fi lool Mbacke ñi ma nga xam ne mooy sëñ Abdou Lahad nee na moog ñi àndal kim ci njëkk a tudd di sëriñ Abdou saar maanaam ñëpp bokk seen njaboot ñoom ñëpp ñu bokk seen njaboot fii képp kuy xale bu bëgg lu baax fii képp kuy xale bu bëgg lu baax jaxasoo na ak sëñ Bass jaxasoo na ak sëriñ Bass ku bëggul lu baax nag mënoo jaxasoo ak sëriñ Bass ndax sëriñ Bass ci lu baax lay dox mais il s'agit d'avoir été amoureux loolu la Papi Gueye wax Serigne Bass Mandak wax na ko am nga ndam bala si am nga ndam homme de défi nga ku ñëw fii xam ni da boole innovation ak extension nit nag dañuy wax ni bu yokkul moo wàññi lii ngay def ci bis bi boo ci bëggoon dara bind ay soutien bind ay parrainage ku ne nga tuddee ko ko yóbbul ko ab lettre soo toogee sa kër yabal taalibe ñu taxaw bis bi yow laa bëgg nag. yow laa sop yow laay topp te jaraloo ma dara nag dara doo ca fekk ni Serigne Bara toll ci yow gëm gi nga gëm Serigne Bara bëgg Serigne Bara képp ku la xamee bis bii wala mu xam la ci Ndakaaru journée culturelle xamu la 1991 la fi sa baay Serigne Khadim Awa Ba jóge ñu koy ñaanal 1992 93 nga indi RTS Kébémer booba télé melul nii rajo melagul nii moo tax tey ba la Modou Fall sama jarbaat ak ñii fi nekk ñoom la ñu sekk daree di la sinap yàgg nga ak écran yi ngay borom jom ndax lii ko amul jom mënu ko ku bëggul lu baax mënu ko ku amul fit mënu ko li tax mën la am nga ndam nag lépp lu waaye sanc dina am ne ñu du dem 2004 ba nga koy sanc Ablaye Wade nekk président de la république première édition huit ministres de la république nga dalee ci kaw podium bi Serigne Bassirou Baara moom Serigne Baara ñëw fekke ko soxna Xadi Kaolack moom Serigne Baara ñëw Serigne Abdou Fatak Serigne Abdourahmane Xaar njabootu Serigne Touba yëpp nekk ci saal bi deuxième édition bi ñu boole ñaari salle yëpp jox la ñu xajul ci bii beneen salle ba ñu def ci écran géant pour nit ñi mën faa dem taxul situation mën a gérer wu nga wëlbatiku génne millions yi toll yi millions yi nga génne tuwaar fakàlla macha allah def base bii nga xamante ni amul benn événement bu ko xel comme base mu sa génne li fi daje ci 16 ak ah, bis bu nekk ñu ne nan ko yokk waaye li dàq lépp li tax Serigne baara man kanamam te amul tànk ginnaaw mooy journée Serigne Bara nga woote woon ba ci yàgg ñu def ko euh, euh, semaine Serigne Bara waaye léegi mois de Serigne Bara la sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddoom ci ay kàddu yu gàtt di am mbégte ak kontante ak xol bu sedd nee na ki ko waral wala ñi ko waral tàmbalee ci sëriñ Ebu Seeni lay mi nee na moom day xaritam lool di soppeem nee na màggalug Tuuba ku ne xam na ni xat na rawatina màggalug ren gi nga xam ni dëkk bi dafa xawoon a naqaree wu ngir dafa tombe ak nawet waaye li xat-xat bàyyi na ay xuus ci jafe-jafe yi ba agsi ci moom nee na loolu nag lu sedd xolom la bu Seyni sëriñ bi nee na mi ngi lay siyaar di am mbégte ci sa teewaay nga fekk fi mbokkam yu baax yi muy sëriñ maam Cheikh Mbacke AIS nga xam ni noppaliwul depuis bi bis bi tàmbalee ba léegi ba ko jàppee lekkul naanul Kébémer Touba di coordonner lépp lu jëm ci communication bis bi yamul ci loolu ak yeneen ak yeneen yoo xam ni làmmiñ mënu koo tudd mu feggoog Serigne Abdou Khoudous nee na moom it depuis bi ne bis bi jàpp nañ ko le vingt cinq novembre ba léegi ku xool gis ko ci wetam loolu nag du hasard ndax diggante sëriñ Abdou Lahad la woon ak cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu xam ko jàpp ko jaamu boppam bii di rakkam di xaritam nee na waajuram soxna Oumy Touba di waajuram ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Moodu Xabaan di jàmbaar di ku nangoo liggéey sëriñ Moustapha tudd nañ ko léegi léegi la indi adduye ju bari jox ko ko kon sëriñ Moustapha sëriñ bi nee na mi ngi koy sant di ko gërëm nee moom du rakk ci moom nee na sëriñ Moustapha ndax lépp loo xamante ni si baayam Serigne Khadim Awa Ba waroon na koo defal ci moom Serigne Bassirou mii la tombe ndax Serigne Khadim dafay jóge avant Serigne Moustapha di xam lu bari kon papi Serigne bi nee na mi ngi koy nuyu bu baax di nuyu Abdoul Ahad nee na doomam la ndax Mbaye Sarr magam la xaritam la di jàmbaar lool nee na suñ mbokk mi Ousmane loo di nit ku baax yàlla boole kook Serigne Moustapha mii ñu bokk di liggéey te Moustapha nag ku muy liggéeyal dina bàyyi sa dina bàyyi noppam ci yow waaye seen diggante rafet na lool nanu bàyyi bu ay mbokk di ànd ñu naan intérêt la nit boo àndut ak ki nga war a àndal koy àndal Serigne Abdou Khoudous mii Cheikh Abdou bu àndeek ñoom Serigne Abdou Lahad Serigne Touba Serigne Baara Serigne Touba Serigne Fallou Serigne Touba bu nu àndul nee na ñan ñoo war a ànd ñoom ñii noonu la ñuy ànde nawlonte fonkante respectante joxante cër sëriñ bi nee communicateur traditionnel yi ay xaritam lan yàlla moo ko boole ak yéen moo tax bisam ngeen ci am taxawaay bii ngeen ci am mu bëgg nag ngeen gën a góorgóorlu bañ a yàq bis bi nee na yàq bis mooy bàyyi ba bis ba ngay def wala ngay jëf loo xam ni bokkul ci bis bi nee na bëggu fi dara lu dul Baara Serigne Touba njabootuk Serigne Touba l'islam bi diiney l'islam nee na lu dul loolu ku ko fi wax wala nga def ko nee na da lay génn ca biti ak koo mën a doon kon lay maxtaar boo ñëwee fii ci sa bis nga ñëw nee na yow soppeem nga xaritam nga yàlla na la yàlla defal jàmm nee na bëgg na ci yow lool. bés bango seizième édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023